su ak ak ah, xam naa ne moom lu am solo la rek moom ci leen ñëw ñëw nag ci tënk-tënk yi lu baax rek waaye boo ko tënkee yëpp nag mi ngi tàmbalee si yow rek delluwaat ci yow. ndax ay mag lañ amuñu jot ak li ñuy baax baax ak li ñuy gën gën jot moom amuñu ko kon boo nekkee tout tànk ci ñoom sawar ba noppi am yitte fexe ba mën a jaxasoog nit ñi ci saayir ak ci baatin di leen doxal ci biir bokk yi ak taalibe yi cant gi moom dañ koy tàmbalee ci yow di la ko di ko fab di la ko jox di ñaan nga kenn ku ne nga cër ba ko yàlla jox ak cër ba ko Sëriñ Tuubaa jox nga fab cër bu ko ëpp tegal nu ko ci loxoom te nuyul nu leen sëriñ Mor mbari Mari eh, Ndiaye maam Thierno ak sëriñ eh, eh, maam Cheikh Anta dafa mel ne Sénat yoonu murit a ngoog <laughs> Baba sëriñ maam Thierno Ibrahima dafa ne waaw waaw ñeenti saxaaba yii de fañ féete woon yoonante bi féete naa fa sëriñ Touba. ñu ne ko kan mu ne Ababacar Aliyu usmaan Omar <laughs> ñu ne ko ah mu ne njàmbaarug Aliyu ga maa ko yor dëggalug Babacar ga maa ko yor xam-xamub Ousmane ba maa ko yor hmm? kenn ku ne mu ne la ko yàlla defaloon mu ne moom moo ko foofa moo fa féete Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon bis bi su fekkee dañuy màggal ku baax ku tedd kooku nga xam ne moo nu jur te ëtt yi nekk benn ëtt ma daje fi ak doomi sëñ Touba Thierno yi toog Lambaay Bawal sant naa yàlla bu baax waaye am naa ci mbégte bu baax ndax su ma ñëwoon fekkuma fi kenn ci gaa yu baax yii su ma génnee dinaa la woo ne la ana gaa yi noonte wayef na war nga fee fekk war naa fee fekk man ñii ndax jëmm yi toog sëñ Abdou Khoudous dañ laa bëggal seen bopp waaye waaye ni nga mel a tax ni ma la bëggee ni lañ la bëggee ma lay wax ne neel sëriñ bi noo koy sàkku mu ñaanal la te ñaanal sama rakk yi te ñaan te ñaanal ma te ñaanal njaboot gi yépp gis nga bis yu mel nii dafa mat a def ndax xam nga lu tax dafa mat a def lu baax li fi ne ci bis bii lañ koy séddale sëñ Cheikh Sidi Diwaan moo ma nettali ci làmmiñi boppam mu ne ñu baax ñi seen yëf yi seen yëf yi leen yàlla jox ci seen bis yi lañ koy séddale sëriñ tubaa moom nekkul tubaa rek toog fa <laughs> sëñ Touba moom mi ngi dem fi mu war a dem fu ne it sëñ Touba ma nga fa ah waaye gaa yu baax yi it seen bis yii lu baax liñ defal yàlla yëpp ñu yor ko ci seen loxo ci bis bi lañ koy seddale kon ñu ngi lay ñaanal bu baax di la ñaanal it nga gën takk sa ndigg ndax sëñ Modou koo séen muy jëf day leble walla muy fayu bor koo séen muy jëf day leble wala muy fay bu dee leble jar na ko ngir fayu ga bu dee fay jar na ko ngir leb ga doom doom bu toogee ba mu yàgg mu ne saa baay su doon dund dinaa am ci moom nangam magi baayam dund amu ko ci bu baayam doon dund du ko ca am dañoo wax nit ku ne sa baay mooy sa kilifa wala sa taaw baay sa ginnaaw baay la la ci lépp ci ñaar ñii rek nga ko man a ame sa magi baay ak sa baay ci nga ko mën a am ñu ne soo ci dee leble yàlla da defal tuyaaba ba noppi nag bu lay delloo da delloo lu ëpp la nga leble kon nag lii ngay leble ci lu baax te di ko lebal sa waajur yi ak sa kilifa yi yal na la ko yàlla fay ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul dama xaw a sonn rek xaw a waaye waal ñu ngi sant ñëpp man nag man ngeen ñaanal ma man waaw nga wax sëñ bi nekkoon ah, am naa teraanga sëñ Touba defal na ma ko li ma defal doy na ma ak ceer na li ma li ma li ma defee ne daal amaguma ko te du ma ci doyal nekk murid saadix laa bëgg a doon man awma beneen bëgg-bëgg am ngërëmul sëriñ bëkk démb nag sëñ bi nee na ma magoo ci kër gi ëppoo ci mbooloo ëppoo ci doole mu ne ma waaye damaa jot ne nag moom pas-pas moom ku ko ci ëppale nekkut defe naa ci sa kanam hmm? nag damaa bëgg a egg nag fa ma jëm nekk taalibe sëñ Tuubaa waaw loolu rek laa bëgg man man bëgguma leneen <laughs> ah nit koo xam ne sëñ bi yow xamoo lu doon yow ay nit ñoo xam ne boo nee boo ne boo nee nii rek. ñu ñu daan nga laajte ñu jox nga woote ñu wuy si ak noo mën a mel ñu ànd ci ak yow sëñ Tuubaa lim nu boolee nun mën a mel mu ànd ceeg noonu da ngay xool sëñ Mor Kumba Kan xamul woon tur day wax jigéen ñëpp daw ñëw góor ñëpp daw ñëw ah nga xam ne xoolal ku mel ne sëñ Xaalaja am ak baatin bi ko yàlla defal ak ñoom waaja waaye am na taalibeem boo xam ne sëñ Xaala day dafa dafa day tàng ba ñëw ci barab tey la fa dong ab dongaam ah, naan waa ji jox ma nangam ci sëñ xàlla ci ci ci sëñ diw ci ci Mor waa ji defe naa la sant jox ma nàngam ci Mor Ndiaye mu di ko jox xam nga lu muy laaja ah, ah, sàngara tey la sëñ tey donga bi di ci di ci laaj sàngara <laughs> naa ko jox ma sëñ ma Ndiaye jox ma sëñ ma Ndiaye ah ba ba mujj mu am xaalis nag ñëw. Euh, tayle ko fay fay fay bor bi waa ji di ko yalwaan ne ko dama bëggoon nga baal ma ko bi ndax kii daal ni mu nangoo ak ni mu baaxee ak ni mën a liggéey mën naa koy fay weer sax fukki junni sëñ xaal ne ko ah tey du ma yóbbu dama yóbbu sama waaye de moo ko sëñ bi teg ma ko fay bàyyil di yalwaan te kat waa ji moom du naan dellu gën a gëm sëñ xàlla gën koo bëgg te kër gu ne la la toppe yi du loo gën gaa yi déedéet secret bu sëñ Touba def la boo xam ne benn dongo bu ci rëccu amut ci ànd ak diw ak Samba ak Abdou Mor ndax li tax xam nga rëccu du ci am jébbalul ci doomi sëñ Touba wala sëtam jébbalul ci seexu sëñ Touba wala ci Samba wala Demba wala moor ah ak nu mën mel ci kërug àdduna kenn ay fay koy fay sëñ Touba. sëñ mu daa baa la sëñ tubaa daal dajale taalibe yi waxuma la ko fi won kero fi benn barab ñëpp toog mu dajale seex yi dajale bokk yi bokk yi ak seex yi mu ber leen dajale taalibe yi fi barab ber leen di na nag ci taalibe yi daana yéen yéen yi damaa bëgg bi dajalee seex yi ak bokk yi dafa dajale taalibe yi ci benn barab daal di daal di njëkkee ci ci ci bokk yi ak defar yi ay saa bokk yi ak saa defar yi man de war ngeen maa fonkal war ngeen maa fonkal ñii de hmm? ndax nit de bu la defalee loo mënul amoo ku la ko mënal war nga koo fonk ay ay saa bokk ay saa defar fonk leen ma taalibe nit bu la defalee loo mënul amoo ku la ko mënal da nga koy fonk te li may xamal ne fonk ngeen ma mooy fu ngeen teg taalibe yi fonkal leen ma taalibe yi daa di ne daa di daa di ne cell ba yàgg mu ne yéen yéen taalibe yi nag wattu leen ma ci saa bokk yi ak saa defar daa di na ñokket nga ba mu duggee génnaat ci biti mel na magum bi ñëw raam ba fi bi na ko ah Mbàkke ne dafa mel ne dangaa ñaan sa bokk yi ndimbal ci nun ak sa defar gi waaye nun dafa mel ne danga noo tëkku hmm? mu ne ko lool li ma wax de li ma ci jublu mooy ñoom ñii de ku seq ak ñoom jàmm ku leen taral ku leen jox ku leen màggal suma leen dee fayal su ma leen de fayal suñu yoree ak suñu yoru suñ manee fay ak suñu munta fay ñoom man sëñ Bàmba su ma leen di fayal du ma leen tàggu ku ci seq ñoom aw yiw ku ci taral nit ku ci bëgg nit mu am pay wala amul pay su ma koy fayal man sëñ Bàmba du ko tàggu <laughs> daal waaye ku ci seq ak ñoom ab safaan ñu mën a fayu wala mënuñoo fay ñu xam wala xamuñu su ma leen di fayul duma leen tàggu sëñ tubaay fay amul ku gënu sëriñ yàlla xam na ko sëriñ tubaa ku gën kenn amul ndax sëñ mel mu sëñ tubaay fay li nga sëñ tubaay fay nag yàlla boole noo taalibe yi sëñ tubaa yi li mat a ñaan nag mooy fexe ba taalibe sëñ tubaa yi bëgg nit ñuy bëgg nag sol lu baax lu rafet di wax lu baax di jëf lu baax buñ na buñ nu nattee ci bëgg sëñ tubaa nu gën leen koo bëgg buñ nu xoolee ci gën a nangoo liggéeyal sëñ tubaa nu man leen ci buñ ku ko ci def mat ga man nga sëñ Touba ñu ngi lay ñaanal ci barke Serigne tubaa yàlla guddal sa fan te guddal fanu mbooleem ñu ma fi fekkal salaamaaleykum dégg nañ lool. mbokk yi ñu nekkal yëpp tey jii dañoo nekkoon ci bisub sëñ Mor Awa Mbëri nekk fii ci kër sëñ Abdul Xudus suñu wayjur ci ndigalul sëñ Aali mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Abdul Xudus waaye ci fu sëriñ Sidi Maxtaar mi nga xam ne moom la suñ Morowa Njaay tuddee maam seexanta Anta moo rakkam ji fi nekk mu tuddee ko maam Thierno yàlla suñ borom bay yàgg leen fi euh, mu mel ni dañoo am ay gan yu tedd mooy sëñ Modou Kara Sylla Diwane moom xalifaab sëñ Cheikh Sylla Diwane bi nga xam ne yàlla dafa def sëriñ ba Antou Niang mi fi nekkal borom Daarul Moxti euh, jiital ko ci mbooleem seexi yaakaar Thierno Birahim euh, kon lu ñu fiy wax sax mën naa ne ci kàddoom lañ ko waxee ndax kër baayam la ñëw kon nag euh, ànd ak sëñ Moustapha ak njabootu boppam fekk fii suñu bokki waa kër sëñ Abdou Salaam Gom alaaji Sayer ànd ak ay rakam yëpp ak euh, sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Maju njaay ak mboolem bokk yu baax yi fi nekk yëpp di am mbégte lool ci taxawaay bi di leen ñaanal yàlla bis bii luñ ci amee yal ko bokk nun ñëpp waaye bis bii moom sëñ bi wala fii nga nekk néeg bii ñu jàkkaarloo sëñ Mourao Balla am na fi ñetti fan. waaw sama way jurit joxoon nañ ko boroom daaru Muxti mook Baye Cheikh Kounta mii nekk xalifa bi Baye Cheikh Kounta nee na ma booba daaru ndox jafe na fa lool daanañ liggéey ba waxtu jot waxtu jëfandiku nee na nga gis mag moo xam ne ne àgg ci jànj nee na dëbb rukk ba mu nooy mu fexe ba am lu ko taqale ndox wala dara donte ndox yumb fa nee na mu fas ba ak ba biiram kii mu takk ak laxasaayam sëñ Abdul Xuddus nettali na ma jamono jooju nee na daanañ bu jëfandiku jotee borom daaru mooy tibb ci mbattu jox leen nee na ñu maree léeg-léeg mu xeli ci satalaak ndox jox leen ak kubeer waaw Baye Cheikh Kounta nee na ma am na bagaan goo xam ne nii ñoom donga yi dañ ca dañ ca daan togg laaxu bisaab waaye nee na buñ koy xooñ ñoom donga yi dañuy dugg ci biir bagaan gi di ko xooñ Baye Cheikh Kounta bi ne xalifa bi nettali na ma lool nee na keroog ba ñu agsee rek borom daaru daa wax am ko mu woon nag génne saatu nee nañ leen wat na leen yeesalal ba ci yàgg moo mel na mag na leen bu ñu demee nañ ma leen joxe sëñ Moro ba gërëm naa leen waaye bàyyiwuma leen moo tax bi ma bi yàlla dogalee ma nekk ci daara tërbiye ji sama waajur ne ma liggéey boobu ma doon liggéeyal borom daaru maag sa waajur bàyyi seexonte laa bëgg nga matalil ma ko moo tax keroog ba ma sëñ Moussa sa di yeewi boole ko kaamilu alxuraan daane boo demee nga am na nga fexe ba am ngërëm sëñ Abdou Khoudous yaakaar daaru muxti mii nañ fii lool ndax borom borom barab bii yaakaar naa ne tuddi na borom daaru muxti ñetti doom xaw ma ñeent sëñ Thierno Yacine mi nga xam ne yàlla def na moo ko njëkk a wuutu 1904 la te maam Thierno lañ ko tudde te amaana yeneen Thierno yu fi nekk yaakaar naa ne sëñ Abdourahman moom borom daaru ko mii noonu fii la sëñ Morawa Ndiaye tudd na ko doom kër gii ñu jàkkaarlool nga xam ne moo nekk ñaareelu xalifa Baye Serigne Fatou moom tudd ki mu tudd sëñ Abdourahman li ko manqué juróom-ñett fukki at bëriwut ak sëñ Abdou Khoudous yaakaar naa ne borom kër gi it maam Thierno Biraye moo jox aw turam keroog bi ñu jébbaloo ci borom daaru yaakaar naa ne mag ñu bari ñoo ci àndoon demuk sëñ bi Touba bañ jébbaloo ba noppi sëñ borom daaru sëñ Morawa Ndiaye wax ko ne ko am na gan gu ma faay gu bàyyi ku nekk ci nekk te amatul tur ndax ku masaam ci sëñ bi lay yónnee mu ne ko ndax tudd nga sëñ bi mu ne ko tudd naa ko ay yoon mu ne ko tudd nga ma mu ne ko tudd naa la ko tudd naa la mu ne ko tudde ko Abdul Xudus loolu mooy sababu sunu wajun tudd ko sëñ Abdul Xudus ñu joxoon ko borom daaru ci nekk moog rakam ji fi nekk fii nga ñëw it sa kër la ndax bay Baye Cheikh Ndour nettali na ma mooy xalifa bi demu gànnaar ga ci diggante sëñ Mbaye gaan ak sëñ Aliou Diouf ak sëñ Mor Awa mbari Mbëri eh, sëñ Mbaye Cargaan ak sëñ Mor Awa Ndiaye Mbëri demu gànnaar sekk fekki sëñ bi Sarsara bu dee fii ci Bawol la ci ñoom la bàyyi ko ñoo doon waxtaan ba ci yàgg sëñ Mor Awa ko sëñ bi dey bi ñu bisee géej gi dafay yàggut waaye dafa dem gànnaar teñ foo na dem seetu ko sëñ Mbaye ci laa xam ne boroom jëlal dana bërit na ko jàpp ci ko jógal ñu dem sëñ Mor Awa nag ne ko gànnaar du doxub ñaari fan te aajana bi yóbbal te dañoo am bokk yoo xam ne ñoo bokk sëñ bi te nekk Bawol te ñu koy yaatal ñu yëgal leen ko loolee dem googee wax nañ ne ñett ñi mës a jiite sëñ Touba ak julli sëñ Morawa Njaay ci la bokk sëñ Afe moom ñëpp xam nañ ko waaye ke leen ñetteel man xaw ma ko wax nañ ne jiite na fa sëñ bi ak waxtu julli demu gànnaar googee tamit fa la fasante kóllëre sëñ ma paati si la fa lañ jàppante bu wér a wér bàyyi si mii tey bu ñu fa demoon dana la wax ne la bi bi sëñ mu bi borom daaru wàccee sëñ mu daaw bàll ànd ak sëñ Abdou Khoudous ak sëñ ma paati la ñu fekk ci kër sëñ Mourou Moussa gi fii xaw ma kër sëñ Basiru Bambey nee na sëñ Modou Abala ne ko kaay nuyoo waa kër Baye Mor Awa Ndiaye nee na ma paate daa suunoon waaye daa jóg ne daal di jóg daa ne sëñ Mor Awa moo leen meññi nee na yéen samay doom ngeen nettali leen ci seen diggante lu bare bari ca gànnaar kon yaakaar naa ne sëñ bi fii boo fi ñëwee def nga lu rafet kon nag dañ lay ñaanal yàlla yan bii nga xam ne sëñ Basiiru Anta Ñaŋ teg na ko ci sa loxo yàlla suñ borom woyofal ko xam ne sëñ Tuubaa moo lay liggéeyloo ci biir yoon wi yoon wi nag mooy Ceerno Birahim ndax sëñ Modou Maxtaar Mbàkke toog naa mu ne sëñ tubaa bu daan waxtaan ak maam Thierno danaa ko sunu yoon yi la koy wax sunu yoon yi la koy wax kon yaakaar naa ne boroom daaru moom mooy yoon yi ñëpp xam nañ taxawaayam ci kër sëñ Tuubaa kon nag yal na yàlla fayal nu leen yaag sa bokk yu baax yi nga àndal yëpp waaw bëgg nañ lool foo nekk rek da fay siggil képp koo xam ne nii rek ñu ngi lay tudd di tudd sëñ bi da koy tax a kon nag loolu yal na yàlla yàggal la te wéral la ndax ñaankat lu am solo la suma turandoo daan wax ne sëñ mu daa balla ñaan ba ma ne may àjjana la taliwu dara kon nag yal na suñ borom dëgëral la taxawal la du caageenu nag bis a bari rek ñuy def bis ndax am na la boo xam ne nii rek bu buñ ci sukkandikoo rek war naa tax ñu woote bis bii mooy sëñ Morawa am na cër ci sëñ Touba mag ñëpp am ci cër waaye am na ci jagle goo xam ne nii neewaa na nit fekk ko ca ndax sëñ bi wala ba nga ñëw mu laaj la sóoru sumar nga wax ko mu ne suñ borom dañoo boole maa yow lu ñu nekk ci kaw suuf te sëñ bi daana wax ne diw ak diw a bokki mbir nettali nañ man am na koo xam dañ ko denc ba pare di génn ci xeej yi daje kene ki ñu di ko andi waaye sëñ bi xamal ko ne ko nag yow saar wii la ñu dund ci kaw suuf maa yow sóoru mu bam ba mu àggalee sëñ bi na ko nag damay wax dama lay wax lu koy firndeel mooy kilifa gu mag ci lislaam dina génn jamono te nit ku weex lay doon balaa semaine bee dellusi ñu teg ci ay fan yu néew Cheikh Sidi Baba nelaw ci Murtani loolu ma nga daari kaamil te noona la demee te sëñ bi wax ne jàmm bu ñëw ci kaw suuf rek sa dund tolloog naag aw saar ci alxuraan wala leen ci ay aaya aaya nag mooy ma ñi nga xam ne nii dañuy ñëw dellu wala ñaari weer wala ñetti weer wala ñetti at boo appantee rek kon kenn ku ne say at noonu la toll sëñ bi wax ne nag man sóoratu tansil lay dund te sóoratu tansil mooy sóoratu sumar te loolu yaakaar naa ne kon lu wér la sëñ bi 1853 ba 27 daf lay jox at yooyu juróom-ñaar fukki at ak juróom sëñ Marawa Ndiaye mbëri benn at la ko borom daaru moxti magee 1863 la ba 1937 la fi bàyyi ko keroog bi mu fi bàyyi ko day yónni Baye Malick Fall ne ko boo demee demal ma ci Thierno waaw te toog déglu ko jox ko addiya keroog ba ko borom daaru di yeewi da koo jox ay waajukaay ak ñaan ne ko bu demee nañ ko yemale foofu ba mu dikkeet mu ñëw denc loola daal di ñëw daal di ne ko ah, borom daaru di mi ngi lay nuyu lu bari ñaan na la bu baax a baax mu ne ko amul leneen lu ci bokk luy nuroog ay kayit yu weex mu yedd boppam doog a dem daal di ko indi mu jël ko téye ko taf ko ci dënnam ne ko demal denc ko bañ soxla ko daanaka bu fi bàyyi ko kuy laal lu ñuul bu bu mu ci bokk buñ ma denc ci penc mi coowal xale yi dañ may sonal wax nañ ne barabam bi fii ci wetu kàddu gi lañ njëkk gas ñett yoon gas nañ ko saa yu gasee maanaam suuf si ñu doog a tànn nit ñi denc ko jébbal ko boromam bor bañ ba mu wax ne ku santul Mbàkke bu fi nekkee bu fi nekkut kii mu tuddee sëñ bu mag bi muy sama ñaareelu doom mën na ko taxaw keroog ba mu ko taxaw bañ denc ko ba jébbal ko borom laata ñuy jóge ci armée la gis nañ gawar maam Seex ma sëñ gi maam Cerno yebal ko kon fii barab la kër sëñ Tuubaa la waaye kër ëtt bii nga nekk moom atub Daaru Muxti la ndax sama waajur maam Cerno joxe aw turam maam Cerno lañ ko joxoon sëñ Abdou Xudoos lañ ko tudde kër gi Daaru Muxti lay siyaare sëñ Aali mi fi nekk euh, sëñ Karaako sa lay siyaare kon nag fii sa kër la say rakk lañ waaye say bi lañ ndax yoon yi ku la ci mage benn fan rek mën na la ci jëwrin te yaa nu mag mën nu way jur boo amee wooye fukk lu waaye xew la nga dem ca loolu sax mbaax la bu la neexoon nga ne ba sëñ Seex si la diiwaan ne la weeg léegi lee mu yàgg li ko manqué ñeent fukki at bëriwut taraanga jone nuyu na la macha allah yal na yokk kon Mouride Sadikh boobu ngay wax ah yal na ko yàlla defal rek ñu ngi jégalu bu baax ci kaddu yu guddi kon dafa xaw a guddi te kilifa samay kilifa rek a nekk ci dëkk bi moo sañoo ne nga saafante ñoom balaa ngay dem incha allah ñu ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu